jërë ngeen jëf ami téléspectateurs yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ah, di am mbégte ñëwaat jàkkaarloowaat ak yéen ci seen seen leader bi di People 221 tey nag ma ñëw seet si sama sama coach muy di ah, lamin Golo sama mag sama frère daa sonn nag nekk ci ay xat-xat mais tey fexe naa ba génnee ko ma koy jéglu lu baax a baax coach su may bàyyi nga nuyoog ñu lay siiwal. salaamaaleykum maa ngi nuyu monde entier di nuyu seen site bi People 221. di nuyu géejawaay di nuyu waa géejawaay di nuyu ñëpp daal. Mhm. Mhm. Mhm. Lamine fi may njëkkee euh, dama ñëw ci combat bi combat bi euh, dama ñëw ci préparation combat bi combat bi nan ngeen ko doon préparé. waaw combat Balla bi wax dëgg yàlla préparé nañ ko sérieusement wax dëgg yàlla préparation bu métti sax mbër mi tegoo ay coono yu méttee méttee métti sax. ñu préparé woon ba am bu baax ne sax ñun gëm naa ne woon ni man Boy Niang jàppoon naa dañ koy daan. mais ñun tamit. yéene rek lañ am. Mhm. ak sabab lu mais yàlla mooy dogal. Mhm. yàlla may ko ndam. ci biir préparation boobu noonu ñu gis ni mbër bu daan combat yi passé yëpp daan préparé dem extérieur. combat bi mu toog Sénégal loo leen ko digal la wala loo leen waxtaanee la. non làmb ji moo laajul woon loolu rek. wax dëgg yàlla liñ bëggoon mu toog ko Sénégal liggéey liggéey na ko. Mhm. waaw. aussi tamit combat bi ñu ñu ñu gis wàllu wàllu entraînement yi. bëggoon naa ñu ñëw comme yaa nekkoon course bi. ci yan façon ngeen doon entraîné ak ci yan heure ngeen doon gën a entraîné parce que Balla bëri loolu la ngay ci combat bi. si lépp su daan xëy dadaan dem diin dadaan dem musculation su yeewoo ngoon gi mu ñëw contact guddi gi ay une mu dem diin. daan def quatre séances sax presque. si bu ak bopp beeg yëpp waaw. Mhm. ñu gis ni aussi tamit combat bi ñu bari dañ doon wax ni mbër na def ci manqué contact moo tax bi mu jàppanteeg booy ñaa mu réer ci combat bi. xam nga tey làmb moom moo demee noonu gis nga soo daanoo lu nekk ngay dégg. Mhm. mais wax dëgg yàlla Balla Gaye lépp lu mu waroon def def na ko ci làmb ci mhm. man de wax dëgg yàlla man entraîneur am ak man mi nga xam chaque jour ñooy nekk. Mhm. gisuma ci leen lu lu ko sikk. yàlla moo ñëw rek mu demee ni mais daj na ay coono yu méttee métti sax. ma ñëw ci état de forme ah bu ñu xoolee Balla Gaye forme bi. mu indi ci combat bi du ma ni mosu koo indi ci combat yi mu duggee ci VIP mais bariwul lu mu koy gis ci wàllu entraînement loolu na ko tegool wala dafa dafa wàññi poids pour pour maintenir Boy Niang. làmb ji moo laajoon loolu déggoo li ma la lépp lu mu ku xool état bi mu indi woon ak Gris Bordeaux xam ne bii bokkul. Mhm. parce que làmb ji moo laaj loolu dañ na ay coono dindi na si yaramam lu bëree bari sax. Mhm. dina dañ na ay coono yu bëree bari yoo xam ne. ci combat bi ci combat bi. Mhm. yoo xam ne yàlla rek la moo laa koy seedeel. ñu ñëw ci côté booy ñaaw si tamit ñu bari doon wax naan bu bu duggee ci poids lourd yi am ay jafe mu ñëw ci combat bi dëggal boppam ci digganteem ak Balla waaw dara yàlla moo ne woon boo Niang day daan Balla Gaye yeneen poids lourds yi dañ koy daan. xale la te toll na nag tamit fu mu waree daan Balla Gaye te xëy na yàlla suñu borom bëri na daal yàlla may ko ndam maa ngi koy félicité bu baax a baax. Mhm. di ko ñaanal ndam li jik ko. Mhm. Mm. defet bi noo ko dundee. noo dundee wu ko dara am naa lu ma metti torop mais tamit benn côté da ngay xool xam ne tamit yàlla mooy dogal quoi. Hmm. yàlla moo ñu xañ mais kenn xañuñu. mu hmm. hmm. ñëw ci combat bi ñu bari doon wax ni Balla Gaye combat bi dafa yéex dem stade presque boo xoolee cinq mooy la génn këram est-ce que tamit bokkul ci li ko xam ne moo ko indil empêchement ba mu yàgg. ci biir géew non génnul cinq mooy de Balla Gaye ñu convoqué woon ko Balla Gaye est-ce que ñëwul trois heures trois heures et quelque la ñëw ay quatre heures quatre heures fekk na Balla Gaye ci làmb ji. ma ñëw wàllu entraînement bi ba tey fa combat bi nga ni quatre séances lañ doon liggéey te ñu bari doon wax ni Balla Gaye léegi daanaka mm, ah, âge am la mënatul mënatul tenir loolu yow mi nga xam ne yaay kut sam est-ce que mën nga leen andil loolu ay leeral. Balla de soo neexee ngeen dem laaj kër si musculation ak waa ASFA militaire yi ko doon entraîné luñ ko mës a teg tegoo na nit ñi nag ñoo fi nekk de man mii rek judduwuma te Balla Gaye man maa ko mag Balla Gaye soo xoolee VIP yi nekk ci kaw yëpp ñoo ko mag kon Balla Gaye fan la toll boo xam ne ba mënatul li muy def Balla Gaye xale yi mu nekkal si écurie bi li muy li xale yi di def loolu lay def. Mhm. kon tamit ku naan mënatul da nga ko fréquenté wul wala xamoo ko rek. Mhm. nee naa su defet ñëwee rek ñëw na lu ne ngay dégg. Mhm. mais su doon ndam rek. ak bëgg rek moom moo ñu ko gënoon bëgg sax. mais tamit yàlla mooy dogal ko est-ce que tamit nekkul quatre avance yi nga xam ne jël na ko ku nekk di ko préparé ndoo moom muy préparé quatre personnes quatre personnes yëpp di ko préparé. yooyu yëpp yooyu dara su yàlla àndoon ak moom ne quatre ñëpp da di daan da leen di daan. jaam bi moom amul lu def ak sabab yàlla mooy dogal moo yor dernier mot bi. Mhm. yàlla moo ñu xañ. Mhm. mais du keneen. Mhm. ma ñëw ci ci làmb ji Balla Gaye bëree noo xam ne ñu bari dañ naan Balla Gaye chaque jour ci ay combat am ah, li mu wax lay def mooy danaan la may naa la une minute wala deux minutes te loolu lay appliqué combat bi ni mu ci bëree nii consigne la boo leen ko jox wala ay décision la. non def na loolu wax dëgg yàlla def na loolu mais xëy na mooy li la wax rek jaam sabab loo àlla am yàlla mooy yeggale nee woon na ko su ma la xaaree une minute ñëwoo ma ñëw te ba ko xaaree une minute ñëwul dafa ñëw. te wax dëgg yàlla Balla Gaye demam moom du bett kenn ñun ñëpp digaluñ ko woon loolu mais moom jàpp nañ lu taxaw si kanamam moo la mën. ah da ngeen ko xaarloo woon. moo tax mu def loolu waaw. ah combat da ngeen ko xaarloo woon. non amul woon leen lu muy prouver si bi taxaw xaar la war a def booy bi moo bëggoon mu ñëw. Mhm. ñu gis nii tamit am na ay failles yoo xam ne am na ñu ko gis ci combat bi muy Balla Gaye en tant que poids lourd. Mhm. est que war naa tibb suuf di dóori ba pare di perte équilibre ci combat bi. yooyu yëpp bëre la rek bëre la rek jéel la ñëw rek su jéel la ñëwee yooyu yëpp nit ñi dañ koy gis mais su daanoon yooyu yëpp nit ñi dañ ko wax. Mhm. mais jéel la ñëw rek moo tax ñuy wax yooyu yëpp. Mhm. Mhm. ma ñëw ci côté blessure bi nga xam ne gars yi doon nañ ko wax blessure bi avant combat bi la wala ci jour combat bi la. di wax blessure moom fi neen di ko fi tudd am na ñoo xam ne da ngay wax say wax ñu toog si internet naan bàyyi leen salteel di turu jàmbur am na ci koo xam ne dama ko ràññeeku ku ñu naan Daouda ak Sayar xaw ma nan interview boo def dañuy dugg di saaga ay saaga yu <laughs> ñaaw. commentaire ah. billaay dañ lay saaga ndey te man leen man sama yaay moo gën seen yaay. Mhm. sama yaay dem na Màkka. Mhm. te foo ko fekk mu ngi ci kurusam ak kaamilam. xamuñu ki ñuy saaga yaayam. Mhm. mais man leer na ma ne te sama yaay sax moo gën seen yaay amul leer na ma. ndax ku ñàkk a jox cër yaayam mooy téye di saaga yaayu jàmbur chaque jour yoo xam ne si internet dañ nga ko ñemee saaga. te leer ma ne man xam na ma te maa ngi koy romb te du la ko wax. mais yooyu amul solo. man li leen déranger mooy leen suñ ma dékkee micro dëgg laay wax. du ma fenn. Mhm. ndax chaque jour rek ni ma mel noon laa mel damaa naturel. Mhm. du ma tricher lu ma waaye laaj ci lu ma xam dama koy wax su ma xamul dama naan la xaw ma. Mhm. mais nañ bàyyi di saaga nit ñi si internet yi ak ñiy commentaire nit soo ko seedaanee wax ji neexu la. bul commentaire déglu li ngay déglu nga dem mais dañ lay saaga ay saaga yu ñaaw. te man leer na ma ni mooy li ma la wax rek. seen yaay soo leen fekkoon yoruñu yaay yu baax sax bay tekki dara mais man sama yaay waxuma ko pour bàkku de mais dafa baax. ndax nee naa dem na màkka te foo ko fekk mu kaamil baa ngi ci moom. sama profilu whatsapp sax gis ngeen ko moom moo ci nekk tiim kaamilam mm-hmm. dara mu seede mm-hmm. foo ko fekk day jàng alxuraan soo ko fekkoon noonu mu ngi toog saal ba sa kaw di jàng. Mm-hmm. kon saaga yi koy saaga. neex na ma naqari na ma naqariw ma. Mm-hmm. parce que xamuñu yaay ki ñuy saaga moo tax. Mm-hmm. combat bi Balla Gaye ñu bari di wax naan da cee wéet parce que maa ngi déglu ci mel ni Père Bekaay mu ni Balla su bëggee di. am non wéetaay amu ci. Balla Gaye def na li mu war a def yëpp defet moo ñëw rek wéetaay amu ci de def na ñi mu war a li mu war a def yëpp defet su ñëwee faay yu ne la nit ñi di génne mais su daanoon duñ wax loolu lépp ndax détail yooyu ñuy wax noonu yëpp contre Gris Bordeaux ñi ñuy lim ñooñu ñëpp ñëwuñu woon. te teewul dañoo daan. defet moo ñëw ñu wax ko. ñooñu mu amal poroblème wala dara su dee am nañ problème ñooñu ay frère Balla Gaye fu ñu daje dañuy nuyoo jàmm sante xëy na nit ñi ñoo leen gisul ñu ànd ci làmb wala dara mais lépp garaawul quoi yàlla baax na. Mm-hmm. li ci kanam li ci des ci kanam nañ ibbi rek seen bëri di xool yàlla baax na. actuellement nii ana ana Balla Gaye dafa gàddaay parce que ñu bari ñu ngi naan këram fii golf ñu ngi fi nekk naan daa dem France ak daal demul fenn. Mm-hmm. demul fenn. Mm-hmm. su du woon lii nii ma woo ko nii ngay gis. Mm-hmm. alors léegi nga jëm ay combat yoo xam ne nii ñu bari nee nañ Balla Gaye fi mu jugee nii sa combat boobu noonu du delloo avance bi parce que Eumeu Sène tamit. non su delloo avance bi kan moo ko koy jox ñu naan nañ ko delloo nañ ko delloo nañ bàyyi loolu Balla Gaye façon tàkkusaan bu ne bëre na ko fi. bu mu métti rek ñu bëgg a wax yenn wax yi nañ bàyyi yooyu ñu def. Balla Gaye kenn du ko si yëkkati quatre-vingts millions ñu koy bàyyiloo ne dañ ko koy may. te mu ngi daj ay coono yoo xam ne xaalis bii muy lekk su ko lekkee da koy rees ak jàmm. Mhm. parce que tëddul di jëlul xaalis promoteur rek tëdd di nelaw. Mhm. mu ngi fay sëriñ mu ngi def lépp. tey jii la mu indi si stade ba kere kenn du ko gis ne fayul sëriñ. Mhm. wala kenn du ne wutul ñaan mais yàlla moo ñëw. nañ nangu ni yàlla moo ñëw te ñaanal ko wér ak tan ak gudd fan. ba mën a nekkaat ci li war a nekk. sunu mhm. borom di ko defal jàmm. ñu mhm. mhm. ma ñëw ci biir ci biir ci biir tuus mi ah. ñu bari aussi tamit joxoñ baaraamu tuuma waa kat Boy Niang parce que ñu ngi naan bi tey soo maa ngi seede mu bi tuus micro bi. dafa yoroon ay biteel mooy jabaru Cheikh Niang yooyu noonu ñu ni est-ce que bokkul ci li nga xam ne mooy yàq làmb ji. waaw lépp mën naa nekk rek yooyu yëpp c'est des yoo xam ne nii mooy li ma la rek su defet amee ku lu nekk la ñuy gis defet moom defet baaxul ci dara moo waral ñuy wax wax yi ñuy wax. mais yàlla baax na daal. ma ci déglu tamit liiru jaan mu ni Balla Gaye heure bi moo doon dugg ci biir géew bi gars yi dañ ko xam moo tax gars yi yokk heure bi ba presque ay timis. waaw li ci ne déggoo la làmb ji li ci nekk yëpp dafa bëri. mën nga ñu cee lay leeral parce que Lamine tamit tey man boo gisee li tax ma jël sama temps pour mën a waxtaan ak yow tey am na ñoo xam ne bu Lamine Golo waxee Lamine wax nañu jàpp parce que mooy coach su Balla Gaye ndax làmb ji guddee xam ne dama yaakaar CNG looloo tax ñu jël ay dispositions yu bari mais euh, Balla teel naa pare mais kee teelut a pare moo tax mu doon jël temps li muy def rek mhm. xam nga ni làmb ju dem ba pare si vingt deux heures mhm. ci làmb rek xëy na mooy loolu mais làmb daal làmb la woon rek mhm. après combat bi tamit du ma ni ay coow am na ci mais ma tamit dégg naa ci ay coow yoo xam ni mu nekkoon ci diggante jaw Père Diaw doon wax ni blessure bi yéen danga ngeen ko koo nëbbu. waaw lépp rek mooy li ma wax rek Père Diaw moom nga gis fekk na bi Balla Gaye di entraîné. am na séance d' entraînement yoo xam ne fekkee na ko. Mhm. mais moom dafa jommi ne ma xaw ma ni woon Balla Gaye mënati na lii. moom dafa jommi ne xaw ma ni woon Balla Gaye mënati na lii. Mhm. Père ci boppam. jommi na kontaan ne ma billaay kontaan naa barke sëñ Babacar baala dina ko. Père Diaw waaw mais su defee ñëwee xëy na day dekko daa xëy na tamit ak fi ñu ko jëlee si tàng tàng bi rek mu waxee dë dënn. Mhm. mais du dara Père Diaw moom sunu père la sunu xarit la xëy na daa waxee dënn rek. actuellement lan ngay wax Balla Gaye comme yaa ngi jàkkaarloog moom. amul dara lu ma koy na dem dellu takkaat tubayam takk dàll yi delluwaat ci liggéey bi dugg fa mu mu war a dugg ndax fii Sénégal kenn moomul fenn na dem wuti fu ko digal fii lu baax lu ko mën a may jàmm wala lu ko mën a may ndam na ko def takkaat ay dàllam gën a yokkaat liggéey bi nekkaat ci li mu nekkoon ni mu préparé combat bi liggéey boobu mu nekkoon na ci nekkaat ci kombaa bi mu dën malaat mhm. ndax su ci nekkaatee sama xel dina dal mhm. te dem gën a wuti ñaan te xam ne dëkk bi bàyyiwuñu kenn kuy dem la ñuy bañ te sut si ndakaaru njaay mhm. da ngay nekk ak ñoo xam ne ñoo la gën a jege sax duñ la yéene ndam mhm. loolu lépp nag Balla Gaye mbër la mais défaite bi da koy gën defaan mbër yaakaar naa ne mhm. aussi tamit yaa ngi wax ci wàllu sot boobu noonu combat bi tamit ñu bari joxoñ tuuma ko ci mel ni ay Siteu ay Reug Reug est yoon la woon muy dugg foofu noonu di wës ay biteel bay wër Balla Gaye loolu yoon la non ñoom ñoom dañoo baax di def rek mais ku ci nekk am nga sa bés am nañ duraan ak faral ñoom la rek tey ji su ñuy Balla Gaye su ko neexee dem jàppale ci seen adversaire mhm. yàlla baax na mhm. Reug Reug am nañ combat ak moom mhm. la mu doon wisalaatee nga def yooyu mënoon na ko téye ba bisam mu def ko mais dara xëy na yàlla moo ko boole parce que nekkul tamit dañoo bëgg déstabiliser Balla Gaye moo tax ñu non Balla Gaye mbër mu mag la ñooñu mënuñu koo déstabiliser ñooñu ñëpp koo déstabiliser amul leen luñ koy déstabiliser ma ci déglu fii sa Balla tamit muy attaqué ki nga xamante ni mooy Siteu naan Ah, Lirou Diane sax de mu ngay wax ni combat Balla Gaye ak Boy Niang loolu yoonam nekku ci ba muy ba waa Géejawaay ah non xëy na Siteu moom wax dëgg yàlla Baye Fall bi daa baax rek di def loo xam ne nii moom xëy na baaxaayam moo tax mu koy def rek amuñu leen luñ koy wax nag mhm. lu dul làmbang sunu kanam rek mhm. loolu rek laa koy wax te komba bi lan nga ci jàngee jàng nañ ci lu bëree bëri jàng nañ ci lu bëree bëree bëri ndax xam nga tey jii quatre vingt bu dara dul dara rek suñu gox bii rek dafa doy waar dafay am ñoo xam ne dañ lay siiñ te bëgguñu mhm. Balla Gaye ni mel yàlla moo ko def. Mhm. moo ko fi def numéro un daanu na de mais teewul mooy numéro un ba léegi. Mhm. mais parce que li mu fi mën a def ak li mu fi mën a génne kenn mënu koo génn te borom jom la borom manoore la ñun moom ak lu mun ti xew ñaanuma ko yàlla sans jël dañuy ànd ak Balla Gaye. Mhm. man mbër bu dul Balla Gaye ñoroo ma ndax lu mu bon bon école de lutte bi ma nekk maa fay entraîneur mooy tedd film si moom laa concentré mais ñeneen ñi si def seen détails yeeg yooyu yëpp man du ma si dugg sax. seeni wax ak seeni coow jour ba ma defee déclaration ne ma bu kenn wax waxi ay affaire cent pour cent géejawaay ak ay yooyu loolu lu ma gëm la parce que xam naa ni am na si ñu bari ñoo xam ne dëgguwuñu moo tax te man lu ay caaxaan bokk ak tricherie rek du ma ci sori. parce que 100 pour cent boobu noonu ñu ngi gis bi open press bi jàllee guy mu ngi génn di attaqué kii di Lac de Guiers naan pourquoi ñëwul ci signature bi ba loolu indi coow ci bés boo xam ni bés boo xam ni parce que nee nañ 3 jours moo ci nga man dama weex donc su ma waxee ci kenn rek. dama koy tooñ. mais tey 100 pour cent bi laay wax parce que est ce que Balla Gaye yoon la muy combat des 3 jours coow yooyu noonu di ci am. ñoo xëy na ñoom la rek ñoom la concerné mais ñoom bi coow lu bari bari bari ñun ñu ngi concentré ndax Balla Gaye yàgg na am combat ñuy génn di wax te ñoom mosu ñoo toog am combat Balla Gaye dégg wax ci wax ju ñagas. Mhm. loolu yàgg na fi te mis nañ ko suñuy nopp. Mhm. Balla Gaye moom xam na ñi ko bëgg xam na ñi ko bañ. man jarul ma naan ko kii moo la bëgg wala kii moo la bañ man jarul ma ko wax Balla hmm. Gaye magum jëmm la hmm. te xam na li ma xam noppi waale ko hmm. si àdduna leen rek moo bon muy tricherie te moom xam na am na ñoo xam li ñuy def dëgg la am na ñoo xam dañuy tricher pour war ni Sénégal lii moo fi nekk te fekk loolu nekk kon jàpp nga ni cent pour cent boobu ñuy wax géejawaay nekkul loo xam ne lu dëggu la no man wóoruma dëggu na ak dëggu na moom ñoom la concerné mais man lijjantiwu ma ay cent pour cent ak yooyu man sama école bii rek doy na ma coono yi ma ciy daj ak doy na ma. Mhm. Mhm. tey combat yi ci kanam noo koy waajalee. waaw waajal bu baax ndax ñëpp xam nañu Fils de Balla am na combat caatu daaw da faal ñoom ñëpp am nañ combat combat ba jaw de bala Gaye Sa Thiès. Mhm. ñun ñëpp nekkaat ci liggéey bi rek. mais dafa nekk ci école ci écurie léegi. waaw ñëw si école de lutte Balla Gaye la ah, nekk léegi. ci combat bi nii. waaw Sa Thiès fa la nekk Sa Thiès doore xëy na daa demoon rek baayam yor mu dem mag taxawee fa mbër mu mag. mais fi mu ne nii comme Kër Massar dafa sori te Sa Thiès fii yëpp fii la. Mhm. Sa Thiès daa ñëw dellu si waat rek ndax si école bi la doon nekkoon. Mhm. daa dellu si waat rek. Mhm. te combat boobu noonu digganteem ak Reug Reug donte dinañ fi ñëwaat waxtaan ci ak defet bi nii nekkul loo xam ne. waaj ko rek waaj rek. ndax Sa li si Balla Gaye du si Sa Thiès. li si Sa du si Balla Gaye. ku nekk sa bis la am. waajaat bis bii rek gën ko waaj nag. fonk ko torop loo xam ne ni ñun xam nañ ko waa mais yàlla baax na. tey vraiment jël naa sa temps waxtaan tamit amaana bëggoon nañ mu gën a neex mais da feebar. non sant ñëpp gërëm ñëpp. Mm-hmm. tey jii li nga bëgg a laaj li nga ma laaj loo ma si laaj rek damay tontu. Mm-hmm. ak lu mënti xew damay tontu. Mm-hmm. man dawuma wala ragaluma daal li may nëbb. sant Aziz Ndiaye bu baax. Masata Kor Ndiak Baara Gueye Kilin Ewen Cheikh ñoom ñëpp Andaw njaay Pape Mama Fall ñoom ñëpp gis nañ taxawaay bi taxawee mbër mi. yàlla mi am fay yàlla nañ leen fayal boppam man neewuma kenn jàppale ma mais jàppale bi ñuy jàppale Balla rek dafa neex maa leen di ñoom ñëpp bu baax a baax a baax danaan leen nañ jàpp rek lii ñëw ci kanam moo daax incha allah yàlla baax jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon suivre mu noonu moo nekkoon suñu invité di Lamine Golo coach su école de lutte di leen jox yeneen dig daje ci suñu émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf